fi ci jumaa yi Khadim Touba dellusiwaat ak yeen ci waxtaan yi nga xamne ne muqaddamatul khidma mo koy amal bi koor gi tambale ba tay tay ci ñaar fukel bu fan bi ci ñaar fukel waxtaan bi ñu ñëwaat wara andak gan gu am solo ci tem bu am solo yit ñi ngi wara Eh, sunu gan ci jotaayu tay bi muy almudir Serigne Ahmadou Samb ñu wara waxtane ak yi nga xamne mom moom lañ amanteeg xaywana di muy bayima yi waye bala ñu ñew ci waxtane yi dañ leen fatali waat rek ndax japp nañ ne ñu bari ci ñun ñi ñuy rawati nañ ñi yittewoo walu xam-xam xam nañ jëm ju tedd ji ñu wara andal ci waxtaan wi ni muy serigne ahmadu sambu di ñi daara ju mag jee al azhar ci serigne murtada ji ñu gën ko xam ci mahadul azhar ndam markas khadim rasul serigne ahmadu sambu buñ bëggona ñew ci xamle gu gatt rek dañ naan doomi dekk bi la kuñ xam la ci jotaay yu melni waye it yàgg na fee ñëw muy jëmm joo xam ne mi ngi def njàngum alquranam ci imaamu daaru khudus sëriñ cheikh sey ñu gën ko xam ci baay cheikh sey foofa la doon defee njàngum alquranam ba àggale matalem njàngam ci wàlluk alquran ba ci paree ma nga demaat ca mahadu durus al bu daaru xudóos école sëriñ cheikh mbàkke bii ci daaru Fofa la leen jang fa marhala ibtidaiya jangam mu ñeuk ci walum arab Bim fa joge ci la dem ci al azhar bu bambay bu seigne murtada joge fa ñewat al azhar bu ndam bu seigne murtada bi nga xamne moko jité jaare na fa ci azhar bobu bu ndam bobu fofu la joge nak dem al qahira université bu mag bi nek egypte ñu nan ko al azhar ñu duppé ko al azhar yu seigne murtada yi ci rew mi fofa la motlem jangam ci gattal rek ba dellusiwaat ci rew mi don ko xamne ne nañ ko ci yu melni fi ci rew mi ci Europe ci amerique mu da ànd ak Cheikh murtada di def yu melni ba di ci ànd ak it bi Cheikh Mamour mbak di def yu melni tay mom lañ wara andal ci jotaay bu jataayu tay bi ñuy waxtane ak yi nga xamne ne lañ amel bayima mei, yi wala siak lañ bayi ak yi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 واجعل فؤادي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu دي نيو دلين زيارة دلين دوكيل شهر رمضان مبارك di ñaan yàlla subhaanahu wa lépp lu ci dégg ci yërmaande mu defal nu ko lépp lim mu ci déggale digee ci njëggal mu baax nu ko lépp lu mu ci ak njot ci sawara yit mu baaxe nu ko amin bi jaahi Cheikhna al Xadim radiyallahu taala anhu di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel nag taalibe yépp waaye di jiital ci ndokkeel googu cheikhina al xalifa cheikh Sidi al Muxtaar na ko yàlla yàggal lool guddal aw fanam yàggaleel liggéeyam ci barki Sëñ Tuubaa waaye duñ mën a bañ a sant ak a gërëm ak a dalal ak a ndokkeel daairatu muxaddamatul xidma bi nga xam ne moo sabab ak sunu jotaay bii ak jotaay yi ko jiitu woon ci weer wi ak yi ko jiitu woon ci at yi jiitu yépp muy jataay yu rafet yu am solo yu sedd xol yoo xam ne dana dëppook ngërëmal sëriñ bi ak ngëneelam ndaxte luy dundal koor gi la ci ruu yi waaye luy dundal koor gi la tamit ci beneen côté bi ci des ndogu yeeg xéewal yeeg yépp dara mankiwut kazalika tamit loolu lépp ñoom Muxaddamatul Xidma ñoo ko taxawee kon yal na yàlla subhaanahu wa a gën a taxaw ngir ñu mën a gën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci côté boobu kon dañ leen di sant rek ngir dalal gi ñu dalal ci lii yaatal nu ci ak di ci yaatal ñu mel ni ñun xanaa di wax ne bari na waxtaan yu ñu jiitu woon mbokk yi ñu jiitu woon yépp di suñuy sëriñ di suñuy sang di suñuy xarit ñu def fi waxtaan yu am solo ak leeral yu am solo ci xam-xam ak niw yu kawe ñi tam ñi ngi rafetlu liñ fi jàllale lépp di wax ne xëy na dañuy taas ci seen barke rek ngir jàllale lii ñu bëgg a jàllale te ni ko Serigne Mourtala la waxe mu jëm ci àq yi nga xam ne doomu aadama war na koo bàyyi xel digganteem ak mala yi muy bàyyi may diggante xar yi nag yi diggante fas yi ak diggante ba ci yi tuuti sax am jëflante boo xam ne moom la jullit bi war a bàyyi xel nu ngi jëflanteeg mala yooyu kon suñuy waxtaan incha allah taala coo ci lañ ko bëgg a tënk di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal na tawféex te nangul leen te nangul na kon mbokk yi ñun ñëpp dañuy xam ne lislaam tër na tër boo xam ne organisé organisation boo xam ne lépp lu ne ci àdduna lépp lu xew ci àdduna lislaam tëral na ko aw tëralin woo xam ne njariñ képp la ca doomu aadama yi amee ba dara du sooxe kon matale googu ma lislaam matale ci ay tëralinam ngir njariñ doomu aadama loolu mat a bàyyi xel la lu am solo la te lépp lu yàlla bind ci kaw suuf nos ko ngir doomu aadama man koo jariñoo rek ngir terangal doomu aadama la rek a tax ngir jariñ doomu aadama نحن وفني ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كون تيرانغي دوما ادم ريك موتاخ يالله سبحانه وتعالى ديف بند عمل ليب لوم عمل سي كو سوف با نوبي نك نوسكو غير دوما ادم نتي جيرين تيت دوما ادم سا يو غني جيرينو يوي كو سبحانه وتعالى ديفال ci lay gën a jot gëddaam ci lay gën gën karaamaam ci lay gën jën xurmaam te it ci lay tax mu man jooxe li yàlla subhanahu wa taala bëgg ci moom te mooy mu jaamu ko rek ndax lim ko wàccee ci kaw suuf mooy mu déggal yàlla wa maa xalaqtu diina wal insa illa liya'budun kon jaamu googu ngir mën a am fokk yàlla subhanahu wa taala tàggatal lépp lu dul doomu aadama doomu aadama suñu boom lépp lu dul doomu mu tàggatal ko doomu aadama ngir mu man koo jariñoo waaye nag jariñoo gi fiiriwu tëdd ak jug ak ñàkk xalaat waaye dafa war a xalaat ci boroomam sopp boroomam jaamu boroomam moo tax yàlla subhanahu wa taala jàppalal ko ko dugg na ci nag li yàlla tàggat lépp muy bàyyi may ak xaywaanaat yi yàlla ko tàggat bindi leen tasaare leen ñu bari lool waaye bi mu ko defee it daa wax ne defuma ko ngir ñu doon ñoo xam ne dañ leen di jariñoo ñoom bàyyi may rek te amuñu benn xiima amuñu benn sago solo déedéet am nañ solo lool am nañ solo soo xam ne su doom aadama am rek am nañ ko ñoom am nañ sax ay jagleel yoo xam ne am nañ ko te doomu aadama amu ko mën nañ caa tudd yenn bi ca njëkk mooy ni doomu aadama doone aw xeet aki kurel aki ak i nation noonu la yàlla subhanahu wa taala defé baye ma tamit ñu doon ay xeet aki kurel aki ak i nation loolu alxuraan ko wax kurel ak nation nak fuñu ñu mën di nek amna lu leen di tënk amna ñi seeni intérêt amna seeni seen i njariñ am na àq amna seeni nàngam kazalik kon haywana di ndeké kon aw xeet lañ ay xeet lañ comme ni mu doon ay xeet am ay intérêt am nañ ñu bëgg amna lu leen wala lolu alxuraan di wax ne وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهي إلا أمم أمثالكم خيط لن كم دين دون خيط تيت نجين خمنا نك نجين دفع خيط تميت تخد تيوت نلق للإنسان بير ما تخمني ما فرطنا في الكتاب من شيء لب لن أم لب لن يرى جاري نورك لب لن يرى أم شيء أقرك من يالله سبحانه وتعالى دفعنا tayit ni ngeen di dundé di dé di lek di naan di wër di wéré di di jur di dencante nonu tamit la hayawanat yoy dencante non lañu jur ba faatu jot ci ñom ñu faatu ëlëk tamit yalla dañ leen dekkal ni muy dekkali doom adama yi yalla dañ leen fang ni muy fangé doom adama yi waye ñom nak lañuy wuté ak doom adama moy yalla dañ leen di def suuf bu ko defé ñu doon pënd naaw doomu aadama nak ñu hisab ko ci lim doon def ak lim doon wax ak lim doon baña wax ndax mom yàlla da def ci mom xel ta xam ngeen ne bàyyi mom yàlla defalu ko xel loolu tax takkilifu ko jëf toggu ko jëf ngir mu di ko isaab ëllëg waaye lépp lu doomu aadama yi def ci côté yi da koy def loolu tax ñu ne ëlëk yéefar bi bu gisé ni yàlla subhanahu wa taala fange bàyyi may ak malay ba nopi soppi leen suuf ñoomi it dañuy mébéta mel non moom la alquran di wax wa yaqulu kafir ya laytani kuntu turaban kon dañuy dund dañuy de dañ leen dekkal dañ leen fang waye nak yàlla subhanahu wa taala togg leen jëf ñoom animal yoy yooyu bàyyi may kon ni doomu aadama doonew xet don ay nation non tamit kazalika le bàyyi may ak malay non lañ doone ay xet non lañ doon ay nation beneen bi ci des subhaanahu wa taala wax na ne bàyyi meeg mala yi dama koo def ngir muy kiimaan ci sama kiimaan yi dama leen koo defal yéen doomaare aadama ngir ngeen war cee xalaat jël ci ay ibar jëm ci ay waaraate bu la xar rombe yor ñeenti tànkam yori béjjënam nga war caa xalaat bëy romb la yor yori béjjënam yorum sikkimam yor bu gàttam war nga caa xalaat nag romb la yor béjjën yu rëy war nga caa la gudd lool war nga caa waaye du jógee nii dama leen a bind rek bàyyi leen noonu déedéet dama koo def ibra wa mawizatan lakum ngeen mën cee xalaat xam ne yàlla subhanahu wa taala dajale na li ci kii lu baree bare bare bare kii ngay romb kat ci la soow nekk ci la deret nekk ci la sébrit nekk ci la baqta nekk ci la taflit nekk ci la yu baree bari nekk moom xar moom wala moom nag moom waye ci xere ñi subhaanahu wa taala nak la jël li ñi wax soow ak meew mi nek ci mom ber ko ci ruq so xamne sa saa yoo ko soxlaa fekk fa rat ko def ko ci kaas naan ko wala nga wayal ko wala nga jox sa dom te du taqaloog say mbiri sa du taqaloog sanguwaay ma du taqaloog len kon lolu ki kiimaanu sun mom la subhanahu wa taala bëgg kuy xol ci lolu lolu lay wax ne wa inna lakum fil an'ami an'aami joxna len ak waara ak waaru ak xalaat ci jur yi nasqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa daman labanan xaalisan saaixan lishaaribin xam ngeen ni deret ak soow lépp ci biir xar la nekk wala ci biir nag la nekk wala ci biir giléem la nekk waaye subhana wa taala da koy tàqale nee na loolu nag lu yéeme loo xam ne warees na koo bàyyi xel te di ci xalaat baax mu ne ba tey giréem li muy gudd gudd bu la rombee war ngaa mën a xool xalaat ci yàlla ndaxte doomu aadama bu ko bëggee war war ko ak ni mu gudde ni muy ware mbaam rek loo koy ware ni muy ware fas loo ko ware ak li muy rëy rëy ak li muy gudd gudd ak li muy am doole doole yàlla tàggat ko lool bu bëggee tukki war ko bu bëggee sëf ciment war ko sëf ca bu bëggee sëf matt sëf ca bu bëggee sëf ay nit sax sëf ci ay nit loolu man yàlla subhanahu wa taala li ñu ko defal war ngeen ci xalaat baax ba loo tax naan allahu jaala lakum al an'ama li tarkabu fiha wa minha ta'kulun li tarkabu minha wa minha ta'kulun fu leen neex war jëm fa waaye tamit su leen neexee ngeen rendi ko jariñu ca jariñ ca ñeneen te am ngeen ci ay njariñ yu bare bare bare xam ngeen ne der ci bàyyi may lañ koy jëlee dàll yi ñuy sol saag yi ni yor yu baree bare bare bari muy ay manaafi yu baree bare bari ci bàyyi ma la ko yàlla subhanahu wa baaxe nit ki mu di ko ci jële jegeti cuir yeeg lin yeeg mbaxana yeeg yu bare bare bari ci xayawaanaat yi lañ ko jël loo tax mu ne walakum fiha manaafi am ngeen ci ay njariñ yu bari yoo xam ne maa leen ko jëmal ولتبلغ منا حاجة في صدوركم باتاي امنا يينين na يو خاني yoo xam جي فاج فاج سين cee faj faj seen ñu naqar féexal ci seen xol nga am sa fas rafet yew ko ci sa sa sa sa sa buntu kër wala nga yew ko ci sa garab ko sang diko xol leg leg nga ñëw tok fi mom day dindi lu bare bare bare ci ay njàqare ak ci ci yow kon bari na ay njariñ yu bari yo xamne man yàlla subhanahu wa taala def naa ko ci bayima tayit lu ngeen bëgg seuf ci ngeen koy seuf xam ngeen ni lu tabax rafet rafet wala lu kër rafet rafet ciment baag fer baag dénk yaag bagage yépp ñaare bàyyi mi la ñuy takk sareet ñu yóbbu ko fa di ko jële ko yóbbu ak kon li ci nekk ci ay njariñ yi ñu war a xalaat bari na lool kon nag doomu aadama yi wërta jéem a sàggane benn kiimaan ci kiimaan yàlla yi wala mu di ko weddi xiiwaal yu yaatu yu bare bare bare defal nañu ko kon bàyyi ma tomb la boo xam ne doomu aadama war na ci xalaat mën cee delloo siwaat kiimaanu suñu boom mën cee dellu siwaat eh, kàttanu yàlla subhanahu wa taala kon loolu ngëneel la ci bàyyi ma bàyyi ma tamit ñu bari liñ gën a jàpp ci li feeñ mooy duñu wax mu mënuñu wax comme ni doomu aadama di waxe nii waaye ndeke ci kaw lañ dul jàpp ne dañuy wax waaye ndeke dañuy wax danañ waxanteeg seeni moroom danañ waxit waxante ak ño xamne yàlla baxé na leen ñi wax ak ñom no doomu aadama yoo xam ne yàlla bax na leen ñi xam ak dégg li gunóor di wax wala sank sanqleñ di wax wala li gilem di wax wala li am picc di wax xam ngeen ne yont yàlla daawud alayhi salam mo ci misal mi ci njëkk yàlla tàggatoon ko lépp luy naaw lépp luy bayima ma xam limi wax di waxanteeg ñoom di leen jox ay ndigal di leen tere ñuy jóg ka dugg ak génn kon bàyyi ma daa mel ne doomu aadama day jàpp ne moom dafa lu mënta wax mënta expliquer mënta dara waaye nag alquran soxal na ne ndeke am na ci bàyyi ma yoo xam ne danañ wax te it danañ waxante ci seen biir doomu aadama yi yàlla defal na ñenn ñi ñu am ngëneelal mën a xam li bàyyi ma di wax kon loolu ngëneel lu rëy la ci bàyyi ma ba nga xam ne wëyeefu lolou man ci jël misal ci sidina sulayman alayhi salam sulayman yàlla dako tagatalon jinne yi tagatalol ko baye mi tagatalol ko lépp muy xam li ñuy wax di deg seeni wax de ngeen alquran di wax ci sourate Naml ne hatta iza ataw ala wadi naml qala namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yaxtimannakum sulayman wa junuduhu yéen xorandoom yi dugg leen seen kër seen pax yi fekk Suleymaan booba daa àndoon nag mbooloom mu bari bi muy jub xur wi nag te xur wi benn kër xorondoom gu mag ne fi benn xorandoom ci xorandoom yi yëg ni Suleymaan a ngi ñëw te bu mbooloo mi mu àndal bu ñëwee danañ nappaajax mboolem xorandoom yi fi nekk ñuy dee mu wax a gaayam ni leen jóg leen gaaw dugg seen kër ndaxte Suleymaan a ngi ñëw te mën nañ leen a gaañ rey leen gaañ gi sax duñ ko jublu duñ ko tey dañ ko du yëg rek bu ñu xamoon ne yéen a ngi fi duñ fi jaar ndax ñoom ñu gëm yàlla lañ duñ rey doomu aadama waxuma bàyyi ma duñ rey bàyyi ma sax duñ ko rey duñ leen gaañ waaye nag waxum laa yash'uruun jaa tax dañ dul xam ne yéen a ngi fi ñu jaar fi ba gaañ leen kon nag dugg leen ci seen i seen seeni seen i seen i seen i pax لا يحتمل أن يكون سليمان وجنوده هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها léegi bi loolu amee Souleymane dégg na li xoronoom yi wax ndax li tax mu muñ daal di ree ree ree ree dégg na li xoronoom yi wax moo tax mu ree waaye bi mu ree tamit defu ko ngir ndam wala tiitar ci boppam waaye dafa wax ne yow yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay ñaan nga baaxe ma ma sant xéewal gu réy gii nga ma defal may dégg li xorondoom di wax ak ñi mel na ñoom لولا داري وخ يعني الله سبحانه وتعالى فتبسم داهك من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنمت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه نعم باخيد ما يدفلو باخل وخمنا دم كنا نعم بولي يتشي سجام ينغ خمنا دنغلين يرم ألق وأدخلني برحمتك في عبادك من عبادك في عبادك الصالحين سجا ينغ ألق دنغلين يرم نعم ما جبولي كن جابني نموم أبجام جام بويفلا dégg gim dégg xorono muy wax taxu te wër ta tax mu puukaréew wala mu damu waaye daa sant yàlla subhanahu wa kon gis nañ foofu ne Suleymaan dégg na waxi eh, xorondoom bi danañ gisaat feneen it foo xam ne Suleymaan dafay dégg waxi keneen du xorondoom waaye picc la eh, Suleymaan noo ñu waxe ne benn bis dafa woo mboolem njaboot gi talibey jinne yeeg talibey xayawaan yeeg talibey ni ñep ñu tok mu xol gis ñep waye mu xol bam yag mu gis ne amna ben way bu ñëwut melni ni picc mu ñuy hut hut moy musa njiburu ben picc mu ndaw la te civilisé te fonay lol mu xol xol dal gis lu hut hut wa tafaqada tayra wa xaali maa la ara al huda am kaana min al-ghaayibin ah waaw hudhud moom anamu tey gaa yépp ñëw nañ waaye moom ñëwu fa xanaa dafa génn ah génn te jëlu sama ndigal day waru ko woon a def ba tax na duma ko bàyyi noonu la u'adibannahu adaban shadidan aw la adbahannahu bu ñëwee fokk ma bàcc bàcc dangaa ko duma fokk daal ma bantal ko bantal yi metti daal mënu ma ko bàyyi noonu rek ndax ñépp teew daal mu jekki-jekki rocc ku dem te xawma lu muy dem loolu wóorut te duma ko bàyyi loo tax mu ne la uadibanna adaban shadida danaa ko mbugal mbugal mu metti aw la athbaannahu wala sax ma ma ma rey ko la ma lewetal ko sax benn yoon jox ko sëñ siisee mu def ko ndogu dama koy rendi sax benn yoon aw la yatiyanni bi sultaanin mubin wala boobu mu indi ma layu leer wër ma xam ne lii taxoon mu dem waaye bu dul loolu rek danaa ko mbugal wala ma rendi ko sax far fa makata gayra baid ndeke woote hut hut moom picc mi moom soriwut ndeke fi muy wax loolu daanaka bi mu daataa daaneel rek picc mi daal di daal di ñëw bi mu ñëwee rek ne ko ah axattu bi maa lam bi man de ñëw naa waaye day xam naa loo xamut de tey jii de yàlla subhanahu wa taala xamal na ma loo xam ne Suleymaan li ngay bari bari loo xam ak li ngay bari bari njaboot xam picc yi wax ak ay li xorom doom yi wax ak leneen lépp waaye tey jii xam naa loo xam ne xamoo ko yow أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين yàlla daa àtt nag ma demoon ci giir gu ñuy wax bani saba mu doonoon ak nguur jamono yooyu buur bu jigéen jiite leen bu ñu daan wax balxiis mu ne ko daal xeet wu ñuy wax ba saba daal ca laa jóge nii indil naa la ab xibaar xibaar bu leer nañ boo xam ne dana la jëriñ mu ne ko lu mu doon mu ne ko daal man ba ma demee damaa fekk ñoom ñuy mbooloo mu bari te am doole waaye ñu jël jigéen mu jiite leen inni wajadtu imra'atan tamlikum wa uutiyat min kulli shay lu mu soxla rek ñu ngi ko koy defal lu mu soxla ci alal am na ko lu mu soxla ci alal doole am na ko waaye nag la ci yéeme ci yéeme kat ñoom dañoo àndandoo ñoom ñépp jàppe jant bi mooy seen yàlla ñom ñep ñu andalo ci sujjootal jant bi ne mo yàlla mo akane neexoon ñi sujjootal yàlla mi nga xamne mo mag màgg tey boroom lépp yuxijul xab a di wàcce taw bi di génn gantax gi di def nangam def na akane neexoon ñu gëm lool kon lim ko wax indi na la xibar bu wóor bu neex wax na ko ko loo tax mu ne indil na la xibar bu wóor bu neex moy jigen jo xamne dafa yilif mbolo ñu àndandoo di jaamu ab jant te jaamuñ yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo mat a jaamu kon kiy wax kum doon picc picc moomu ñuy wax monsieur Njuburu mooy wax ku muy waxal Souleymane Souleymane di xam li muy wax moom it lu mu wax lu Souleymane wax mu xam ko kon loolu ngëneel lu rëy la ci xayawaan boo xam ne yàlla subhanahu wa taala defal na kon buñ jàppee ni picc yi ak sareet yi ak mbaam yi kon ak fas yi ak giléem yi duñ waxanti ci seen biir wala duñ wax xam ngeen ne alquran wax na ne lépp lu yàlla bind rek day sabbal borom wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdi walakin la tafqahuna tasbihum kon ñoom it am na wax yi ñu wax dañuy waxante di wax ñi ko yàlla baxé nak comme sali sulayman alayhi salam ak ku mel sallallahu alayhi salaam ak gaay yi baax yi awliya wi ñom dañuy netti wala dañuy deg wala dañuy xam li xayawaanaat di wax xayawaan mala muy bàyyi ma am na ngeen lu ko yàlla defal loo xam ne defalu ko doomu aadama yëpp mooy bàyyi ma day gis malaayika am na ci mala bàyyi ma yoo xam ne dañuy gis malaayika am na ci bàyyi yoo xam ne dañuy gis seytaane am na ci bàyyi ma yoo xam ne dañuy dégg mbugal yi ñuy mbugal ñu nekk ci biir bàmmeel yent bi sallallahu alayhi lool moo wax ne إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا سنين ديك يسيق قصب نيان لين يا الله سبحانه وتعالى مميلين تخيو لمين نخت بوابا لتخمو يسب دا جس ملايك سيق كون بو جسي ملايك بو سابي رك دفا جس ملايك كون نكسا يوين ديك دي سيق قصب رك نيان لين يا الله سبحانه وتعالى تخمني ملايك واتنا فوه وإذا سمعتم نهيق العمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا ويبغين ديجين بام مغاخمم مسلم الشيطان تقمن شيطان لجس كن الحمار يرى الشيطان والديك يرى الملك كن سيق متوتي ما مغا خمن من غادم تي مارسي با جندكو ديف كون لا نيه لو تي يالا ديفال نكو غنيلال موي جس ملائكه ba saa yu gisee malaayka rek daa di sab ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne saa yu ndiggee séq gu sab rek ñaan leen yàlla ndax ca malaayka la gis ximaar tamit muy gudd nopp boobu ngeen xam moom bu ŋaaxee rek bayiwul muslu te xam ne seytaane la gis am na beneen hadiis bi wax tamit ne xaj yi ñoom itam dañuy gis seytaane dañuy gis loo xam ne kenn gisu ko loolu yonent bi sallallahu wax ne عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرون ما لا ترون ngeen déggee mbaam mu naax ci guddi ak guddi wala ngeen dégg xaj ba wow ni ngeen muslu ci seytaane ni ngeen muslu ci yàlla subhanahu wa taala musali ndax ñoom dañuy gis lu ngeen dul gis dañuy gis luñ dul gis kon malay yi danañ gis luñ dul gis danañ dégg it luñ dul dégg ndaxte dañuy dégg ñi ne ci seeni bammel ñu leen di mbugal ñom ñuy dégg nañ leen di mbugal waliyaas billahi taala kon yentibi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu mu ne inna la yuadabuuna fi quburihim xatta anna bahaim la tasmau aswatuhum ñi faatu ne ci seen bammel leg leg des na leen mbugal ci seen bammel ludul doom doomu do ne ko deg baye mi sax rab yi ak mala yi ak xar yeeg sax dañ koy dégg waaye doomu aadama mënta dégg loolu gis yàlla subhaanahu wa taala di wax ne doomu aadama li muy foor foor ak li mu ko fonk-fonk léegi-léeg nga gis yàlla subhaanahu wa di wane ne doomu aadama bi mbaam mee ko gën wala xaj bee ko gën am na ci alquran ñu weddi yàlla te mënoon koo gëm nee na ñooñu ñoo bàyyi may ñooyam te ñoo gën a réer sax gaa yima yi gaa yima yi leen gën loolu wax na ko wax na fu mu wax ne walladina kafaru yatamattaun wa yakuluuna kama taakulu l anam waaye wannaaru maswan lahum ñi wedd yàlla dañuy xéewlu di def lu leen neex ci àdduna di lekk comme ni anaam yi lekke waaye sawar rek mu lañ mujje foofu loolu la wax loolu waaye feneen dafa wax ne yàlla bind na leen ñu am ay bët mënoon cee gis kiimaan yàlla am ay nopp mënoon cee dégg kiimaan am ay xol man cee setantal màggu yàlla te defuñu ko mu ne ñooñu ñoo bàyyi ma yi rek ñoo yem waaye ba mu yàgg sax mu ne déedéet ñooñ ñoo gën a réer bàyyi ma yi ndax bàyyi ma yi ñoom am nañ ngànt ndax amuñum xel te doomu aadama daa amum xel bàyyi gi mu bàyyim xelam fee nag jëfandikoo ko ba mel ne bàyyi ma loo tax bàyyi maa ko gën loolu lay wax ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لخيال الذين دفع ملكة العقل والتفكير تجفن يونكو خل لن يالد ماي تنوينكو جفن ديكو تلين كنك باي مبين خمني يالا خل مطول نونو moo tax mooy gën doomu aadama ci wet bokk na ci ngëneelal xayawaanaat yi mala yi mooy ne sax na ne dañuy sàbbal yàlla dañuy sijjootal yàlla yi ni ko yeneen doomu aadama yi defe wala yeneen mbindeef yi ci des niñ ko defee ndaxte waxoon nañ sànq ne yàlla subhanahu wa nee ne lu mu bind rek day sàbbal yàlla waaye nag noo ko du dégg noo ko du xam kon nee na lépp lu ne ci kaw suuf day sujjootal yàlla awalam yaru ila ma xalaqa allahu min cheyin yatafayyau dilaaluhu an ilyamin wa shamail sujjadan lillahi wa hum daaxiruun wa lillahi yasjudu ma fi lsamawati lu ne ci asmaan day sujjootal yàlla wa ma fi l ard lu ne ci suuf day sujjootal yàlla nga nga ne xanaa de bàyyi ma juub ñoom ñoom Muusa ak sànqalee ñooñu de xama bokkuñu mu ne déedéet akay ci lañ bokk min daaba bàyyi may ak xayawaanaat yooyu nga xam ne jàpp nga ne bokkuñu ci ñoom kenn ëppalewu leen ci ci sàbbal yàlla ak sujjóotu yàlla subhaanahu wa taala wax na ne feneen ne wa saxarna maa daawuda sa bex na wa tayr picc yeeg njanaaw yeeg yi mel na ñoom dañuy sàbbal yàlla subhaanahu wa kon ndekete xar mi ñu yeewu ci ëtt bi wala ci wanag wi wala ganaar yi ñuy fat ci wanag wi wala fas wi ñuy takk di ko war ndeke wërte yaa ngi ko war yow di wax leneen waaye moom ndeke sàbbal yàlla subhanahu wa la te léeg-léeg nga war ci kaw ëllëgoon nga war képp waaye dangay ngay dóor sa yar di dal ca kaw di dal ci suuf di dal ca nopp yi di dal ca diggante tànk ya te fekk ne wóote moom woo yusabbihu llah subhanahu wa taala lu doy waar la xañ na yow boo amee tawféex nga nekk lay gis koo xam ne moom day day def noonu ba noppi yaram bay daal ba mu ne ca kaw di di di di di di di sàbbaal wala muy salaat wa nabi di wax dara ma nga naan asbil sutuuri aslih umuuri kathir xuyuuri bila kidaay waaye yaram bay dal te kii di sàbbaal yàlla yàlla du ko suturaal laa yasuruhu llah subhanahu wa taala waaw ndax li muy def dafa dàqoonteeg li muy def kon loolu day wane ne xayawaanaan yi muy mala yi yàlla subhanahu wa taala defal na leen daraja ju rëy yoo xam ne warees na koo bàyyi xel baax a baax bokk na ci li yàlla subhanahu wa taala jagleel mala yi mooy ndox mi nii naan nun doomu aadama ci la ñuy naan ñoom mbay ma garab yeeg meññat yeeg yi ñuy lekk ñoom it ci la ñuy lekk nit ñuy dëkkee am dëkkuwaay noonu dañuy am dëkkuwaay man nga am sa néegum ñax wala nga am sa baraag walla nga am sa faux terrasse wala sa etaas wala sa terrasse dëkk ci yow dama waaye moom it du ñàkk mu yorum paxam wala mu yorum kaasam wala mu mu mu yor am tàggam wala mu yor am lëmam moo xam ne ca lay yeewoo moom bàyyi ma bi wala boog bu dee xaar wala la ci des mu ne ci gétt ga kon kenn ku yàlla subhanahu wa taala bàyyi ci xeewanaat yi ñu tumuranke amuñu fi ñu nekk amut am nañu fi ñu nekk am nañu li ñuy lekk am na lu ñuy naan ni ko yàlla subhanahu wa taala defale bàyyi doomu aadama kon foofu ñoo ci yem képp loolu lay wax wal arda baada dalika dahaaha axraja minha maaha wa maraaha waljibala arsaaha mataan lakum ولأنعامكم نخمك غانتخ ييك لب بنانا سخ دنج كوي ليك بو خولي غولا ليك ليك داغي خولي سا بنانا سخ غولا يت بوكو خولي داي خولي بنانا ام سخ كون يين ييب يين كو بوب كون نخمك خيوال يالا ييب نيكو دوما ادم دي جيفنديكو نون تاميت لاكو لاكو باي مي اك مالاي دي جيفنديكو واخناكو فبان وفاكاتنا ابا وابا متى عن لكم ولانامكم واخناكو باي واخنا يرفع خلي بينا بعض الأرض مما يكون ناس ولا أنعام كن فوفو دي في عزام بنين بكي دس بك نتشينغني للدوام باي مي يتمد واري مي تي القرآن فك أي ساري وخمني توري باي مي لنجر سار وينجك وجه تبرك من سورة البقرة البقرة أو نقلي فيري منم سبحان وتعالى بكون يخون منكو تد بني إسرائيل ولا منتد كسورة موسى نخش موسى بني إسرائيل كلا يبخلو باري waye baqara la wax sallu wa ci gétt mom la wax nga dem ci weneen sar wu mel al anam manon nako koo lu bari lu ko neex mom yàlla waye al anam jur ngi muy bëy ñom ak xar ak giléem ak nak la ko tudde fofu aw tour nak lu am solo la ci li ñu tudde ki tudde it mo koy gëna ëppal solo nak te yàlla tudde kon loolu sharaf la ci xayawaanaat yi ak bàyyi may danga boo doxaatee tuuti it gis sóoratu naxl naxl mooy yamb wi indi lem mënoon na koo tudde sóoratul asal lem nga wala leneen waaye nax la ko tudde yamb kon loolu it teraanga la ak ngëneel ci xayawaanaat yi kasaalika sóoratu namli bi ñu doon wax sànq muy xorondoom sóoratu namli saar woo xam ne namlu la tudd ak saar woo tax ankabur la tudd ankabur ab jargoñ mooy liy lënd ba ci suratul fiil aw ñey kon ay turi saar yu bari yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala da koo féetale loolu ba tey day tegtale xiima ak daraja joo xam ne xaywaanaat yi am na ko baax a baax a baax boole ca nag aay yu bare bare yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala da koy wax di ci tudd ak di ca wax seeni mbir loolee lu feeñ la kon loolu day tegtale ni ndeke mala yi ak bàyyima yi am nañ solo am solo goo xam ne doomu aadama war na koo jàngataa di ko xool waaye doomu aadama war naa bàyyi xel ne baax a baax a baax di yàlla subhanahu wa taala moom la ko defal te ko koo defal nag ngir mu def ko ay jëfandikukaay ak njariñ yoo xam ne day tax mën a jaam yàlla subhanahu wa taala kon xayawaan bu ñu ko dee wax ci arab mooy lépp lu am ruu te du lu am ruu rek te du doomu aadama moom la ñuy wax alxayawaan moo xam luñ yilif la moo xam luñ yilifut la moo xam luñ moom la lu mel ne xar ak bëy ak yu demee noonu wala luñ yilifut lu mel ay sandax ak mbëtt yaag yu mel noonu waaye lépp loo xam ne ru di dund ci kaw suuf rek wala muy naaw ci kaw loolu la ñuy tudde alxayawaan kon ci yooyu lañ doon wax noonu kon kon yërmaane sunu borom ak xereñeem gum xereñ it moo tax bu ñu leen bindee mu am solo ñu am solo am solo googu moo tax mu wone rëdd nan lañ war a dund ak doomu aadama yi ci kaw suuf ban relation moo war a dox diggante xayawaanaat yi ak doomu aadama yi tax ñu bind leen ndax dañ leen di jëfandikoo rek kese buñ noppee sànni walla déet wala dañ leen di fal jëfandikoo jëfandikoo xam dañ leen di bayyi xel xamne ni lii kiimaan lañ ci kiimaan yi suñu borom wala deet kon fofu la yalla subhanahu wa taala indi l'islam indee doxalin wu am solo wo xamne ne yéemu ma bindal naa leen ko yeen dooma adama na ngeen leen di jëflante ak ñoom ci jëflante bu rafet na ngeen leen wuuf di leen jariño bu ngeen rende rendi rendi jariño waye bul rendi mukk wacc bul gaañ bul xifal bul dóor ndaxte loolu santuma lako waaye tamit bàyyi ma bii tamit loo ko fonk fonk fonk na nga jàpp xam ne looy jariñoo rekk la waaye fonk ko bu mu tax nga se nga nga taqdis ko di ko jaamu walla nga màggal ko yaakaar naa ne am na fii ay réew yoo xam ne duñ fa rey nàngam duñ fa rey nag walla rab sàngam diisu ko fa rey léeg-léeg nga dégg ko fi day am loolu ñooñu dañoo fonk bàyyi ma ba yóbbu ko fu mu ko ëllëgoon ñu jàppe ko loo xam ne lu ñuy jariñoo rekk la ñu jàppe ko lu ñuy lislaam doxewul noonu daa bëgg nga xam ne bàyyima bii da nga ko war a jariñoo ci jariñoo ga rafet waaye doo ko fonk fonk fonk bari di ko jaamu comme ni yenn réew yi def kon loolu lislaam wane nañ ci taxawaay bu rafet rafet kon nañ wormaal ma nañ am yërmaane ci moom eh, nañ koy toppatoo ba tax saa yu ñu ko bëgg a jariñoo man koo jariñoo boo ko bëggee war man koo war boo ko bëggee jaay man koo jaay boo ko bëggee rey tamit man koo rey jariñoo ko kon lolu la yàlla subhanahu wa taala rëdd ci l'islam ñu wara doxé non bo défé defee nak yalla subhanahu wa taala gërëm la ca yërëm la ca sante la ca waaye boko defu nak safan bay ñew ndax té dañ ñew ci kanam tuuti inshallah taala ngeen gis né yalla subhanahu wa taala masna mbugal nit masna naa sawara ci sobantal gum sobantal am mus rek jël am mus tejj ko fi barab joxuko mu lek joxuko mu naan ba mus ma dé yonent bi sallallahu ne waa ndaw soosu sawara la jëm lu tax ndax muus moom kon nag aqi bàyyima yii ni ñu bëgg a waxtaan insha allah taala aq bu ci doomu aadama bàyyi rek na xam ne bàkkaar la def tooñ yàlla la def waaye lu baax lu mu ci def rek aq bu mu ci taxawee ba mu am rek na xam ne dana ci am ngërëm yàlla subhanahu wa taala dana ci am njéggalu yàlla subhanahu wa taala ndaxte dana ñëw ca kanam ñu gis ne toppatoo xayawaan ak yërëm ko dana waral ak njégal dana war far ay bàkkaar dana war dugg àjjana kon njariñ yu bari yooyu ñu jot a junj nga xam ne bëri ma mala yi amal nañ ko doomu ci wàlluk faj ci wàlluk dund ndaxte da koy rey di ko dunde ci wàlluk dundiin di ko sol bagage yi di di sol yére yi di sol ngëna di ko jariñoo yu bare bare bare aw saafeek aw baare yépp ci ci ci ci bàyyi may lay jóge kazalika am na teg-tegi diine ay jaamu yàlla yoo xam ne doomu aadama mënu koo def te jëfandikoo wut bàyyi ma xam ngeen ne lu mel ne tabaski xar la ñuy jëfandikoo wala yi demee ne moom lu mel ne hadiyu ci kaaba ga boo demee aji ba hadiyu war la boo koy def wala fidya wala lu mën di doon mala moo la ciy dimbali ab gàtt moo la ciy dimbali aw nanga moo la ciy dimbali kon am na ci yenn di teg tegi diine yoo xam ne doomu aadama mënu ko def te jëfandikoowut lenn ci mala yi yére yi gis ngeen ko niñ ci waxoon lu ëpp ci yére doomu aadama ci bàyyi may lay jóge ak yeneen yi ci aju saag yeeg nangam nangam ñaareel ba ca des itam mala wërsëg la alal la ñeel doomu aadama bu ko jaayee muy xaalis bu ko tey yar ko it mu jurel ko yenen mu jaay ko mi khalis kon masdar rizq la ci do madam bari ana tamit paj wala ay garab wala aw fajin wo xamne docteur xamna ko ñi ko jaare ci ay analyse ak ay experience yo xamne ne ñi koy jele ci mala yi doomu aadama jóguñ jëbuñu rek di xoti ab xolam Diko diko diko fajj wala ñu xotti bëtam di ko faj waaye yépp ñu ngi ko njëkkëri ci bàyyi ma yi bàyyi yi lañ njëkk di jël di ci def loolu ay test di ko jéem ba gis ne garab sàngam mën naa faj sàngam gis ne xol tamit nii lay tëdde wala nangam lay tëdde ci doomu aadama kon ay tajaarib tëbbiye yu baree bare bare yi nga xam ne moom la doomu aadama di def ci bàyyi ma yi moo ko ci dimbali jóge dëkk dem dëkkit xam ngeen léegi la néew waaye bu njëkk dem jóge dëkk dem dëkk bu mu masaan doon fas ngay jël walla mbaam walla baxla wala giléem wala yi demee noonu moom lañ daan war di jóge njaabo di dem njaareem moom lañ daan war di jóge njaareem di def dem Tuuba ak fu man di doon ba nga ni si it gis ngeen ko kon war gi ko doomu aadama di war ak di ci sëf ay bagaasam buy toxu sëf ciy bagaasam buy buy buy liggéey lu sëf ciy bagaasam fu mu mën a jëm sëf ciy bagaasam loolu tamit taqale na bàyyi ma ak doomu aadama ba xam ne mënuñoo taqali ko kon teraanga ju mel noonu ak ngëneel yu mel noonu ak njariñ yu mel noonu ku la ko yoreel war nga ko fonk baax a baax a baax te téye ko baax a baax sun boom wax na ko subhanahu wa taala wal anaama xalaqa lakum fiha dif boo solee jeget bëb cuir wala jeget bëb bëb ngëndal wala bu man di doon li ci ëpp ci xayawaanaat yi lañ koy liggéeyee bu seddee bo démé Italie wala nga dem France wala fu mën doon nga xam glace nga day wacc jege di mel la nit ñi sol ngir mëna mucc ci sedd bi mu tang wala ñu défar ci seeni xeyma wala ñu défar ci seeni nangam ak njariñ yu bari ci yalla def ak liñ ci lekk ak di yanu di yobbu ak di kon njariñ yi ci yalla subhanahu wa taala defal ma dama bari na lool ci baye moom yeew gi képp rek mu ne ci sa kër rek léeg-léeg njariñ lay doon xindi sallallahu alayhi wasallam neena na fas ci keur day waral yiwu bari ci keur loo tax mu ne alxaylu maquulun bi al alxayr ila yowm alqiyaama loo tax mag ni fonkon di yar fas xane dañ koy yeew rek ko ci keur gi du manki dara di sang di ko diko di ko jox mu lek kon ñom nañ jàppoon fas wute nak ak niñ jappé fas ndax lo dañu gisoon li ci Yonent sallallahu alayhi wasallam wax ne fas fumnek nek yiwu du fa jog mukk barke du fa jog mukk am na fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne gileem teraanga la ñeel boroom jur tamit barke la kon yeewoon gi gese ci sa kër rek di ko wudd ak di toppatoo loolu rek njëriñ lu rëy la waxumaa nag yeneen njëriñ yeneen xam ne moom lay jur kon lu amee solo noonu ci doomu aadama fokk mu am ay àq yoo xam ne nag doomu aadama da koy waral da ko koy féeteel loo tax lislaam saxal ne loolu nañ ko bàyyi xel bu baax ne wariisu koo yàq mën ngaa jël benn aaya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'i dil qurba yàlla subhanahu wa taala day digle ku ne ci kaw suuf lépp looy jëflenteel nga jëflenteeg moom ci maandu doo ko tooñ doo ko xañ àqam booy jëflenteeg moom it jëflenteeg moom bil ihsan al ihsan mooy lenn lu am àq lu ne nga jox ko àqam bañ koo xañ kon aaya boobu day tegtale ne suñ digganteeg xayawaan yi war naa mën a doon diggante bu rafet boo xam ne dara du fi ñaaw ndax aaya boobu lépp luy lu baax lu doomu aadama di soxloo rek aaya bi tënk na ko lépp lu bon lu doomu aadama di di di di war a daw rek aaya bi tënk na ko tënk na ko wa itaaji wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkaruun kon ya'idukum la'allakum tadhakkaruun kon yàlla subhaanahu wa taala def na ci aaya boobu lépp luy njariñ mi ngi ci biir lépp lu doomu aadama war a moytu ngi lor mi ngi ci biir kon nak mu ne top to do bayima ak yitte woko man nagn ko dégg ci ay bo baakha baax benen mi ci dess moy ne ñi nga xamne ne ñu yàlla bokk na ci seen jëf yi ñi def wala nafiqi seen jëf yi ñi def moy di tasaro ak di dugg ci àll bi di yàq mbay mi ak di yàq ganjax gi ak di yàq bayima yi wa ida tawalla saa fil ard li yufsida fiha lo la wax ني گم الله ولا نافقين ني دم ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل نسل موي نجورت جورغي اك لوب لي جور ني لين ولا دي لين دي لين ياق نينا ньоญي لي ني داف يالله سبحانه وتعالى باج نكو كون نك سبحانه وتعالى باج نكون كيب ولا موري كو رايت دوي كو ولا موري كو والله لا يحب الفساد دخلوا لي يقلت يالله بوغ دي kon lépp li nur yaq war nañu fexe ba du jégué li nga xamné moy mooy bàyyi ma yi loolu muy ñaarelu ayé bi benen ñettelu ayé bi moy li benen ñettelu tektal bi tektale ne bàyyi ma am nay àq moy li imam muslim wax solo ko ne aisha radiyallahu anha dafa mas ànd ak yonent sallallahu alayhi wasallam rakibat aisha baira baira fa kanat fihi suuba فجعلت تردده فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق عائشة دي war giléem gi giléem gi nanguwut mi ngi bërbëri wala nanguwut a jóg wala nanguwut a yës Aïcha sonn ci loolu di ko di di ko num tëddati di ko dóor ak di ko gërbal yonent bi salaa salaam seetlu ko ne ko aja defal ndànk alayki bi rifq defal ndànk rek ndax ndànk kat lépp lu rafet lu mu dugg da koy gën a rafetal waaye lépp lu ñaaw lu mu dugg lépp lu lépp lu mu dañ loola day ñaaw wala da koy gën a ñaawal lépp lu rafet boo ko dugalee ci boo ca dugalee ak tànkal ak ak teey day gën a rafet waaye lépp loo xam ne dugal nga ci génne nga ci ak teeyal loola day ñaaw mu ne ko nag defal ndànk bul ko dóor bul ko gërbal bul rëkk defal ndànk rek kon loolu day tegtale ne yonent saxal na ne bàyyi ma dañ koo war a yërëm dañ ko war a jëflante moom jëflante bu rafet ibnu omar ibnu amr omar ibnu xataab abdulahi ibnu omar ibnu xataab wax na ne yonente bi salaa sallam nee na mas nañoo mbugal ak jigéen mbugal ma la ko waral mooy muus mum tëjoon joxu ko mu lekk joxu ko mu naan ba yiwu ko mu génn fortaati lu mu lekk ba muus ma dee عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت قد فدخلت فيها النار إلا هي آه، آه، حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض جوخكم لك جوخكم نعم وأيدكو تج ب موسم دي يا الله سبحانه وتعالى لك كنت وصوصا غير سورة كي سورة تلو لك ورا كن لولين يتكتلين لكي bàyyi may kon am nañu benen beneen bi ci dess moy xawloo sallallahu ne dafa amone ben bis ben way di dox di dox di dox bam yag mu mar lol mar wu metti metti moom wajoj waye muy dox di dox bam yag far mu gis ben ten bim gisse ben ten nak yurut pak yurut bak yurut goj yurut dara waye mar yi metti na ci mom ne ba dugg maanaam doon teen boo xam ne day xool mel ne sayaan sayaan xam nga dañ ci mën cee dugg fexe na daal ba dugg ci teen bi naan ba màndi daal di fexe ba génnaat bi mu génnaatee dox tuuti rek dajeeg benn xaj buy àppaat boo xam ne mi ngi mara mara mara mara ba yàlkat lisaan mu xool ko xool ko mu yàgg ne ah kii de li ma jàppoon léegi ba muy bëgg a moo ko jàpp te mooy metti li ko jàpp li ma jàppoon léegi ba bëgg a alku te moo di mar moo ma jàpp moo ko jàpp daa mar de mi ngi mar a mar bay lekk suuf waa ji daldi di ñëw ba ci teen bi daldi duggaat bi muy dugg nag fekk ñaari dàll la soloon muy aw marakis wala lu yeme noonu mu jël marakis wenn wi duggaaleeg moom ci biir teen bi ba mu duggee ba ci biir teen bi mu duy marakis yi ba mu fees mu ŋànk ko ci gimiñam ndax ay loxoom lay jàpp di génn ŋànk ko ci gimiñam dal di jappandu di japp lu génn bi mu génnee fekk xajj bi di alkat non ndax bëgg a akumar mu jox xajj bi mu nana nan ba mandi subhanahu wa taala ne ki day jëfam ji sant nako ko te jéggal naa ko ay bakkaaram fa shakara allah lahu fa xafara khalu ya Rasulullah, bi mu waxee loolu nag saaba yi ndax jàppoon nañ ne num mu di koo xam ne na ca waro son lol wala mu jóge ca keur señ ba son lol wala mu jóge ci daara ji son loolu mar nga yëkkati ndox jox ko koku ngay am tiyaba ji tol non waye ab xaj bo xamne dañ ko xeeb wëré ci ci mën am ñeegal wala wëré ci ci mën am tiyaba ji bi non ñu ne ko waaw yent sallallahu alayhi wasallam saaba ne ko waaw ba ci xaj sax mu ne ko waaw lépp lo xamne am na ko ruu am aw res di dund di noñi rek bo ca défé lu baax yàlla fayla lu baax lu mel non lépp lu baax lépp luy dund am aw res am ruud di noyyi boo ca defee lu baax rek yàlla fay lu baax na fa xaala fii kulli kabin ratbin ajir sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon fama baaluka nag boo ko defoon ci doomu aadama mar ndegam bàyyi ma boobu la yàlla di yërëmi noonu nit jéggal ko njéggal ko tool noonu rawatina nag lu mel ne doomu aadama boo ko defoon kon loolu li ñu ciy déggee ci hadis boobu rek mooy ndeke bàyyi ma yi am nañ àq yoo xam ne warees na koo sàmmonte bu baax a baax a baax te diine indi na ko euh, euh, sunna indi na ko kon bi njëkk ci àq yi kon mooy dañoo war a fexe ba bàyyi ma di dund kon bàyyi ma yi animal yi dañoo war di dund comme ni doomu aadama di dund ne ci seeni barab di dund buñ bëggee dem dem ak dikk di dund di lekk ci ndox naan ci ndox mi di lekk ci gàncax gi yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala da leen ko warlu te doomu aadama yi da leen ko war a fàggul kon doomu aadama na xam ne doomu aadama na xam ne animal yi li ñuy bari bari bari ba ci gunóor yeeg ba ci yépp leen lu nekk daa war a dund yàlla ko wormaal worma ji mu ko wormaal nag duggaat na ci wormaay doomu aadama waaye loolu doomu aadama da ko war a xam ba téye ko baax a baax kon na fexe ba bu lor dooma du lor bàyyi ma ñu fexe ba ñuy dund di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan lu leen bëgg a gaañ ñu taxaw ci loola ba duñ gaañu di leen faj ñuy wér bu ñu amee ab góom nga yóbbu ko ñu faj ko ba mu bu tooyee nga arrêté ko nu mu tëddati téye ko di ko jox ay garab ba mu wér wala nga yóbbu ko ci docteur muy vétérinaire loolu farata la joo xam ne yàlla subhaanahu wa taala wékk ko jullit bi mu war koo def ci bàyyi ma bu mu mën doon ndaxte bàyyi mi dafa a dugg dund tëb jullit warta lor day bàyyi ma waru koo gaañ waru koo def dara loo tax wax ay atte yu bari yoo xam ne indi nañ ko ci loolu nee nañ bàyyi ma am na àq ñi toppatoo ko mu dund fexe ba ñuy yokk bu fekkee ne dafa war a jur wala dañu war a tëbb ñu yóbbu leen ñu tëbb wute leen ay kuy ndax ñuy mën a yokk ñu leen di sàmm ngir ñu mën a yokk bu ñu leen rey hmm, reyin goo xam ne jéggi na dayo ci lu lu ñuy soxla même yi nga xam ne dañuy loraate sax waroo koo rey jañ lor jam lay lor moo tax nga rey ko loolu ñu wax ndox suuf muy jaan rey gi ñu koy rey lor gi muy roy doomu aadama rek moo tax ñu dagana muy rey ko waaye bu du woon loolu duñ ko rey ndax bàyyi ma la ba tax na boo ko dee rey tamit doo ko doo doo doo ko rey di ko mettital danga koy def noo xam ne day daal di dee fi saa si te bañ koo mettital wala nga bañ koo daggate wala nga bañ koo ñaawal loolu dana ñëw ca kanam bu ñuy rendi wala bu ñuy rey nu ñu war a rafetale rey gi wala nu ñu war a rafetale gi kon liñ ciy rey te di ko jariñoo dañ ko war a jël liñ koy liñ ciy rey te nga xam ne ragal lor ci moom moo tax ñu di ko rey it dañ caa war a bàyyi xel baax bàyyi ma tamit bu demee ba tollu diggante kenn waru koo rey te xam ko xar mu ëmb bëy wu ëmb ganaar gu toll ci nen yooyu kenn waru leen a rey te xam ko ndax ci àqam la mu war a dund war a war a dox bu fekkee ne guerre dafa amoon sax nga xam ne jullit yi dañuy xeex ak yéefar yi jullit yi dëgganul ci ñoom ñu dem ci gitti xar ya wala gitti nag ya di leen rey di tiire wala ñu wala wala ñu jam ay xeej déedéet li nga sañ rey yow jullit bi ci jurub ki ngay xeexal mu yéefar bi mooy fas wi mu war di xeex yow wala giléem gi war di xeex yow wala mbaam mi war di xeex yow kooku moom sañ nga koo gaañ ndaxte ci biir xeex bi la bopp waaye la dugg ci biir xeex bi lislaam mayu la nga di ko gaañ wala nga di ko rey wala nga di ci def leen kon loolu li muy tegtale ne mooy yàlla subhanahu wa daa jox àq ci bàyyi ma mu war a dund kenn war koo bañ a fooyee bokk na ci lii tax mu mën a dund mën a sax moom it lu mu ci soxlawul lu ne rek toppatoo ko bañ koo sàggane waaye buñ ci gisoon bàyyi ma wala ay aywaanaat yoo xam ne dañuy bëgg a gaañu wala dañuy bëgg a alku feebar ñëw ci ñoom dañ caa a taxaw ngir feebar bu dakk waaw wala euh, xar wala wala nag woo xam ne nu mu tuddati day bëgg daa daanu ci mpax dañoo war a gaaw génne ko comme doomu aadama ni mën a nekk ci xat-xat am problème ñu war koo xettili ingaaz mawqifam xettili ak ruum bàyyi ma itamit noonu lañ wara xettali seen ru bo xamé ne yàlla dogal na jafe-jafe ñëw ci ñom waye waaye waruñu ne sétan ñuy dé wala nga sétan leen ñuy lap wala nga sétan leen ñuy lak lak ga ñëw na ni ñuy xeetlee doomu aadama noonu lañ war a xeetlee jee bàyyi ma ak lab ñëw na ni ñuy xeetlee doomu aadama noonu lañ war a xeetlee bàyyi ma ndax ak xam la kon fexe ba duñ leen lor fexe ba buñ nekké ci lu leen di alak ñu taxaw ba lolu dañ lolu tamit l'islam boole na ko ci àqi bàyyi ma fexe ba du xiif bàyyi ma bu xiifoon te nga xam ne yow amoo ngooñ moo ko jox wala amoo loo ko jox te dem ba sonn bay bëgg faatu bu boobaa dagan na nga jël ci ngooñum jàmbur wala nga sëqiifi jàmbur wala nga jël ndoxum jàmbur jox ko ko mu naan wala mu jox ko mu lekk ngir xeetli ko loolu fuqaa yi dagana nañu ko kon loolu lépp ngir sàmm ko mu mën a dund dara bañ koo laal wax nañ ci sax ba ne bu fekkoon ne dangaa yor ak jur ca kër ga julli ajjuma jot nga ñëw ba ci yoon yi fàttaliku ne am na ci jur goo xam ne day mar nañ te buñ naanu danañ gaañu bala ngaa dil siwaat dangaa war a delluwaat bàyyi ajjuma ji dem toppatoo leen wala war dañoo lekk dangaa war a dem toppatoo ji wala dañoo war a jur dañoo toll ci ci ñoqi di war a jur dangaa dem taxaw leen li ajjumay foor foor boobaa da nga ko fa war a bàyyi dem toppatoo ji jur ga toppatoo ji sa warax wa ca kër ga mu naan ba mandi nga doga dem julli sa tisbar wala bo meene del si julli si aljuma ci aljuma bo boo julli war sa mbam dem ba ci àll ba nga yor sa satal ak ndox yene nga ci tole ya. keur gi sori na xam nga ni xel ni mbam mi marna na ndax ci suubat yang ko tak muy muy muy ji wala muy radu wala muy def lol mar na te satal ndox gi kep mo fi des te li ci des do nga la man ba l'islam day wax ne jox ko sa mbaam moomu mu naan te yow nga tiim julli waaye doo ko jàppe di ko bàyyi kon loolu day tegtale ne ba tey xam ci mu war a dund lu mat a bàyyi xel la ba jaamu yàlla mën naa ñëw sax yàlla subhanahu wa doxale ci noonu kon ni ñu ko waxee ci ajjuma comme ni ñu ko waxee ci julli mbooloo comme ni ñu ko waxee ci war a tiim kon loolu day tegtale ne doomaa bàyyi ma dañ ko war a sàmm ba du alku ba du yàqu ba du réer kazalika tamit noonu lañ teree noonu lañ teree ku ko mbugal metital ko metital doy ma bokk na ci liñ tere ndaxte metital ko mën naa àgg ci rey ko mën naa àgg ci dootu sakkanati mën naa àgg ci bari te kon dootu dund loo tax ñu tere ne bàyyi ma kenn waru koo metital lu mel ne dóor dóor yoo xam ne teguut fenn bu fekkee ne dañ koy tàggat nga xam ne tàggat daa tàggatoogut daa mokkagut ñu di ko wulli loolu daana dagan bu defee dara ñu di ko ca yar loolu dana dagan waaye bu dul loolu dóor rek nga xam ne yéeg ci kawam ne sa yar bay dal dalaa neex rek nee na déedéet wala mbugal ko dalaa neex rek déedéet kon man u tanzib fexe ba bàyyi bay kenn du leen war kenn du leen mbugal loolu lu sharia digle la ndaxte li sax ci tashina islaami mooy bàyyi ma ci boppam kenn waru koo lor ci lenn kenn waru koo gaañ ci lenn lu dul njariñ da caa nekk rey gi ñu koy rey ak gaañ la waaye njariñal doomu aadama ci nekk moo tax mu dagan bu ñu demoon tamit ba di ko nu di ko faj wala ñu di ko tàggat wala ñu di ko yar boobaa moom dóor yañ koy dóor walla bu fekkoon ne mettital gañ koy mettital ngir di ko ñaas ci misaal parce que danañ ko ñaas bu amee feebar dañ ko ñaas wala mbaam wala yu demee noonu boobaa loola dana dagan ngir faj gañ koy faj wala dóor guñ koy dóor ngir loolu waaye bu dul loolu mettital ko wala dóor ko dóor metti yooyu dara war a tax mu dagan looloo tax ngeen gis ne kon lislaam du mën a nangu ñi nga xam ne dañuy jël ay yëg ay nag li ñuy wax tóoro nga xam ne day am benn waay boo xam ne day yor lu ñaw a ñaw a ñaw boole kook aw nag wu funaay funaay muy mbasanteeg moom dañu gis ci télé yi di ko jam muy nàcc di ko jam di ba mu yàgg mu daanu bu daanoo dañ koy mujj rey bu ñu ko reyee dañ yóbbu yàpp lu cher cher lañ ko jaaye kon xam ne lislaam mënta nangu loolu kon lu mel noonu mettital gu mel noonu la lislaam di bañ wala ñu jël ay cheikh di leen boole ñuy xeex ba ba kenn ku nekk sa sa bopp di naaj ak yu demee noonu loolu kon ngir lislaam bañ ku mettital doo ma moo tax mu tere yooyu yëpp bokk na ci bañ koo mettital li tax bañ koo mettital mooy di ko yan lum mu àttan bàyyi ma kenn du ko yenn lu mu àttanut bokk na ci mettital ko kon yan ko lu mu àttanut mu koo xam ne nu mu tëddati fukki saaku rek la mën a yanu ci ciment nga teg ko ton juróomi bërigo la mën a yanu nga teg ko juróom ñaari bërigo loolu lislaam nanguwu ko loolu nag yaakaar naa ne bu tereet bi taxawee ci lay gën a doy waar ci bare bare bare bare nga gis sareet boo xam ne mbaam moo xam ne mënta yenu lu bari ndeysaan ñu sëf ko ay saakuy ceeb yoo xam ne wala saakuy pepp wala saakuy gerte muy ànd ak moom di sukk sukki léeg la mu àgg ci ab duudaan boo xam ne borom mbaam mi day jàpp fii mbaam mi jàpp fii bañ yëg duudaan bi wala ñu daanu yu yëpp yu ñu war a bàyyi xel leen xam ne lislaam nanguwu ko kon bàyyi ma kenn du ko mbugal kenn du ko teg loo xam ne attanu ko tey danañ indi benn addis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax euh, sëriñ bi mu ngi wax ci jazbul xulóob di wax ne bokk na ci kiimaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga waxoon ak moom mbëtt ma waxoon ak moom zibu nga waxoon ak moom euh, giléem nga da doon jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa masoon a dem ci benn tokkër tokkërub tàndarma dugg ba fa duggé genn giléem daal ñew ci mom daal yëm bi mu yëmmoo moy moy mo ŋaax noonu ci wetu yonent bi alayhi sallam rang wañi di sotteeku di toru yonent bi salaa sallam daal koy yëkëti loxom daal koy raay ni ci wetu kaabaab gi ci wetu nopp bi raay ko raay ko raay ko mu nopp ne ko man de dama ñew ngir jambat la ñaari yef la lay jàmbat choono bu ko wut ak sama borom bi nga moma yor duma tekki duma lumalek, noppal te duma jox dara la ma mos du taam sallallahu Alaihi Wasallam ne waaw kan momom gi ben waaye daal di ñëw ne ko yaa rasulallah man demaa ko moom yonent bi salaa sallam amma tattaqi llaha fi hadihi albahima ay waa ji seet yàlla setal yàlla ci bahima bii la yàlla booleeg moom mënta wax mënta leeral mënta jàmbat waaye nag xanaa déggoo li mu wax mu ne ko lu mu wax mu ne daal ko du noppal te doo ko jox mu lekk du wàcc te du lekk xam ngeen ni doo wàcc doo lekk moom bu yàggee fa mu lay jëme kenn ku ne xam na ko kon mu ne ko duma noppalu te duma jox ma lekk looloo tax ma di ko jàmbat yonent bi sallallahu alayhi ne bàyyi leen ay waaji te ngeen ragal yàlla te bàyyi xel bàyyi ma bii nga xam ne yàlla ko bind bind la bi ko bindee ba noppi wëlbati ko moomale la ko nga di ko jariñoo ko war ba noppi mënoo koo fexe ba di ko dundal ni mu war a dunde di ko noppal ni mu war a noppaloo sallallahu alayhi wasallam kon loolu danga nga ciy dégg ne jur gii yor di leen takki sareet ak di leen sëf war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax dëgg la boo xëyee ba une heure wala ba deux heures nga wàcc booy dem yóbbaaleel su ngooñ booy dem yóbbaaleel pepp booy dem yóbbaaleel ripaas jox ko mu mos ndax loolu nga xam ne mu ngi koy mos noonu sax ci xaalis bi ñuy daw la koy jënd waaye yéen doo daw ba une heure wala ba deux ñëw tekki wàcc rek wala nga sànni ko xotti gerte loolu jaaduwut te kat ma ngay yeyi xoti gerteem waye xola ma ngay tang ma ngay jambat amna eh, kilifa gu bax gu mo waxne ne rangooñi fas yi sotteeku ci dëkk bi baatinu dëkk bee tax mënta wañi wa dëkk bi waye kon mu wañi le rangooñi fas yi sotteeku ci dëkk bi baatinu dëkk bee tax mënta wañi wa dëkk bi waye kon mu wañi le deug la li fi fas di daj mbaam di ko fi daj ñeneen di ko fi daj kenn ku ne xam ne metti na te dañ leen jox seen àq waxuñu ne bu leen kenn war bu leen kenn dakk ndaxte ci la ñuy dem ak dikk waaye nag ñu jox leen seen àq da cee baax lool kon sallallahu alayhi wa loolu la jàngale loolu la wax beneen ba ca des mooy yonent bi sallallahu alayhi dafa mas romb benn bis genn giléem giléem goo xam ne dafa xiif ba dooxe doox mooy na mu tëdd biir bi def nii gannaaw ga gannaaw gannaaw gannaaw ga gannaaw ga doox waaw giléem koo xam ne dafa doox ndax xiif ak yooyu rek salaa salaam di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg mu ne gaa yi ittaqullaha fi hadil baam ay waa ji ragal leen yàlla ci bàyyima yi mënu ñoo wax de ba ngeen di dégg seen wax waaye am na ñu mën a waxal te yàllaa ngi dégg li ñuy wax dee leen leen war te di leen toppatoo bu ngeen leen war tutit di leen toppatoo ba mën leen a lekk su ngeen leen man toppatoo di mën a war ah. bu ngeen leen toppatoo di leen mën a war lu leen neex ngeen war waaye bu ngeen leen bu ngeen leen toppatoo du ngeen leen mën a war te bu ngeen leen warut it ngeen toppatoo leen waaye bàyyi leen nii nii rek yaakaar naa ne loolu moom ay bind yu bare bare lañ ci mën a jël bokk na ci liñ tere tamit sëf bàyyi ma ba noppi toog ca kaw di waxtaan walla taxaw sa sa jël sa mbaam sëf ko ba mu fees a gerte ba noppi yéeg ca kaw toog di waxtaan sa moroom ah nii nañ xaarante juróom-ñaari saret la juróom-ñaari saret nañ xaarante ñu toog kenn sëf nañ ba noppi taxaw mbaa maa ngi yanu taxaw waroon a dex yóbbu di yóbbu ko di bëgg a al di akbar yow nga ne ca kaw di xaar sa moroom di waxtaan sa moroom loolu dëgganut lislaam tere na ko ndax mbugal bàyyi ma la te mbugal bàyyi ma dëgganut loo tax yonent bi salaa salaam wax ne mas naa romb ay nit ñu sëf seeni daaba ba noppi taxaw wala ku ñu sëf dem rek ñu taxaw fa toog yéeg ci kaw nag benkale seeni tànk di waxtaan yonent bi salaa salaam ne laa tattaxiduha karaasi li ahadithikum fi turuq bu ngeen sëfatee seen bàyyi ma yi ba noppi bu leen toog ca kaw nag benkal nag bañ a dem yóbbu sëf ba xanaa toog ca kaw di waxtaan loolu bu leen ko defati xanaa xamu leen li xew mu ne déet ñu ne ko fa rubba markubin xayru min raakibiha bari ana ko war aw fas te fas wéer gën bari ana ko war mbaam te mbaam mi ma gën ñu ne ko naka yaa rasulallah mu ne ndaxte ñoom dañuy tudd yàlla te li ëpp ci nit ñi duñ tudd yàlla wa aktharu dhikrullahi tabaraka wa aktharu minhu dhikrullah ñoom dañuy tudd yàlla lu bari ñoom bàyyi ma yi te yow doomu aadama bi ko war di ko dóor di ko wéq doo tudd yàlla lu dul lu néew a wa a néew kon nag bàyyi leen loolu kon bàyyi ma kenn du ko mettital te di ko tey kenn du ko sàggane te di ko tey kenn du ko xor ñooñal te di ko tey addis yooyu yépp ndëggal na ko ñetteelu àq ba mooy boo yàlla daganalee nga rey bayima bi nga di ko rey nanga ko rey reyin wu rafet waaw bu ko bu ko rey doggali ko rey reyinu ñaaw lees bi la nee na bul ko def ndax yonent bi sallallahu wax ne ne lépp lu doomu aadama def rek war naa mën a rafet lépp lu doomu aadama def yàlla def na mu mën a rafet kataballahu al ihsana fi kulli shay ñu ne ko ahagay naka mu ne rey sax wala rendi nga xam ne daa doy waar moom jël luy dundi jël paaka rendi ni mu doy waar mu ne déedéet loolu sax mën naa rafet waaw nga ne ko nu mu tuuti waaw gaynde ga may rey nag mu ne gaynde ga sax mën naa rafet jaan ji ma bëggoon a maata ma di ko rey mu ne rey ga sax mën naa rafet إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأهدنوا الذبح بوين دي ريندي ريندي لين كو ريندي كو رافت ني نكو يا رسول الله نان لنج كاي ديفه mu ne boo dee rendi da ngay wut rendiwukaay bu ñaw wal yuxidd ahadakum shafratahu boo dee rendi la ngay rendi da nga koy tëral ñàdd ko ñàdd ko ñàdd bu baax loo tax bokk na ci rafetul rendi booy bu ñuy ko tëral ko tëral bu baax téye tànk yépp ba du baj baj du def dara ñaw ka gi nga xam ne paaka bi nga xam ne moo ngi koy rendee na doon paaka bu ñaw ñaareel ba boo koy yóbbu tamit nga yóbbuñ ko ndànk waaye jàpp ji tànk rek ñetti tànk yi ne ca gannaaw ngay saax saax yóbbu wala nga jàpp dóor ci suuf nee na déedéet jël ko jël gu teey xëcc gu xëcc gu teey wut paaka bu ñaw rendi ko boo ko rendee tam bala nga koo fees nga bàyyi ko ba mu sedd waaye ne tëb bi daal di jàpp tànk ba tàmbali nee na déedéet te sedd gu déedéet da nga koy bàyyi ba sedd sedd gi mooy ruu gi ci yaram loolu mooy rafetalu rendi rek muy calli-calli nga daal di tàmbalee fees loolu ëpp naa def wala jàpp ci ñaari tànk rek dagg bopp loolu di ëpp naa def kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam na bu ngeen dee rendi doom ah, bàyyi ma na ngeen ko rendi rendi gu rafet bu ngeen ko doon rey rey boo ko déggee mooy ci loo xam ne dëgganuta na ngeen ko na waaye nag rey ko weneen rey dëgganut naa ko rey naa ko tëj ba mu dee bañ koo jox lekk bañ koo lekk jox naan déedéet loolu dee su ko rey dama naa ko sotti ndox mu tàng donte luy gaañe la dëgganul dem ci pax ne pax mi dàq naa jaan yi mu dugg ci ma jël ma jël ndox di ci sotti ndox mu tàng dëgganul donte jaan day lay lor léeg nag waxi naw kon nag jël ganaar wala yi demee noonu ni ko naq ci ndox ba mu dee kon loolu waxi naw loolu yi dëgganut ñu ko war a renti te dana am ci réew tubaab yi bay ma yoo xam ne dañ leen di naq ci ndox rek ndax dañuy bañ tubaab ñoom dañuy bañ dere ji génn dañ koy naq ci ndox ba ba ba mu dee rek ñu ñu suqi teg fee kon loolu dëggatu ci ab jullit reyin woow di tëj wala sotti ndox wala lakk wala yu demee noonu yëpp lislaam nangu ko ndaxte mbugal ak mettital bàyyi ma la ci boo koy rendi te daa bëgg bu ñu koy rendi ñu rendi ko rendi gu teey loolu tax yonent bi sallallahu alayhi mas na bés muy dox gis benn waay buy rendi waa ji reen di ab gàtt ne yóot gàtt bi rek dal di daaneel dal di jël tànk bi rek jog gi ci boppu gàtt bi daal di rocci paakaam ni esawaay eh, joxam foofu aw doj tàmbali di daas paaka bi tànk baa ngi ci kaw ŋaamu gàtt bi gàtt bi sallallahu alayhi wasallam nee na mi ngi koy xool di xool muy daas paaka bi mu xam ne xel ne paaka bi ci moom la jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegsi ci moom naa ne ko ay waa jile afala qabla yow kay li nga waroon a def daas sa paaka ba noppi bi nga daataa tër wala boog da koo bëgg rey ba noppi xor ñooñal ko da nga koo bëgg rey ñaari rey rey gi mooy rey gi nga koy rey ba noppi xor ñooñal ndax xor ñooñal gis gi mi gis paaka bi ak xor ñooñal la ci moom hada awa turidu an tumitaha mawtatayn xanaa danga ko bëgg a rey ba noppi xoroña ñalaat ko yow kay daasal sa paaka fee ba mu ñaw nga indi ko nee mën na ko bañ a gis sax nga doog koo tër waaye tër mu lay xool sa tànk ne ci kaw ngay daas paaka bi mu tiim ko yonent bi sallallahu ne ko ay waa ji bu ko xoroña bul ko rey ñaari day kon loolu li muy tegtale ba tey mooy ne bu ñuy rendi ab ah, bàyyi ma lim dagana rendi lépp du tee war naa am ñu rafetal ci rendi gi ñu koy rendi noonu tamit lañ teree doyadal ko ak xeeb ko wala di ko rëbb wala di ko ŋàññ dana gis koo xam ne day day day yore ay xaram wala wala wala gàttam wala mbaam di ko rëbb naa ah, su booxun mbaam mi su booxun xar mi su booxun nàngam ji hmm? su booxun fas wi hmm? moo ma sonal moo réew moo def nii moo nangam moo fuuy yar bay dal wala mu saaga sax boo boo boo dee dugg ci kal ci ci sareet yi sareet ñu bari ñu bari dañ ciy dugg ñun dañuy dugg ci sareet yi ñu la toppal ca gannaaw topp sil ci kanam jëm leen ca jumaa ja def leen ni ku paasagut da ngay dégg léeg-léeg nga dugg ci sareet boo xam ne xale bu ndaw moo ko yor waaye saaga yi muy saaga di ko saaga mbaam mi yow mi ne ci kaw ak ñi ci yëpp daanaka yi ngeen bokk waaw koy saaga di ko rëbb loolu dëgganut bàyyi ma kenn du ko saaga kenn du ko rëbb yonent mas naa am mu nekk ci tukki ba mu nee ci tukki nag ñu takk fas yeeg giléem yéeg mbaam yéeg yépp ñu war bi ñuy tàmbalee dox rek mu dégg jenn jigéen joo xam ne daa mer jéppi giléem gi mu waroon di ko di ko di ko rëbb ak di ko saaga yent bi salaa salaam ne taxaw leen ñu taxaw mu ne tekki leen li woon ci na wàcc mu wàcc ñu ne na tekki leen giléem gi li mu sëfoon ñu teg ci giléem gi li mu sëfoon ak li mu yenoon lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bàyyi leen fi giléem gi ndaxte dañ koo tooñ ndax dañ koo saaga dañ koo rëbb sallallahu alayhi wasallam kon bàyyi ma kenn du ko rëbb ci lay waxee tamit moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne yenn bàyyi ma yi bu leen leen rëbb ndaxte xool leen lu mel ni séq ni séq kenn waru koo wax dara waris ko rëbb waru koo saaga ndaxte day yeete ci julli لا تسبوا الديك الديك فإنه يوفد للصلاة julli bu jotee nga dégg ak siq sab na muy gise malaayka ñaare waxtu wu jot da koy waxaale kon yi salaa salaam nee na bu leen kenn ŋàññi siq wala nga di ko saaga ndax léeg-la fajar moo mën a mën a mën a mën a sab lool na awa kii yàq na sama nelaw ganaar gi moo la kële nee na yonent bi salaa salaam nee na tere na loolu bokk na ci liñ tere tamit ñaas ko ñaas moy lak ko wala defal ko mandar nga dañu gis leg leg ay ay ay fas wala ay nak, yo xam dañu leen di defal mandar nga ne borom day bind tour wi ci wet ci wet gi def ko nga abrégé ko nonu dana di am leg leg waaye indi sallallahu alayhi na neena buñ de ñaas wala ñi def lolu nañ tandiku kanam xar kanamu mbaam wala xar kanamu fasi, bu dara jar ñu di ci bind wala bu dara jar ñu di ko ŋaas tere nako loo tax mu ne rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, ani darbi bil wajhi wa ani wasmi fil wajhi boy dor bul dor ci kanam gi waye bo de ñaasit bul ñaas kanam gi buñ de def mandarga buñ def mandarga kon da nga gis lu bari ci mbaam yi wala ci sareet ñu di ko bind borom bind ci ak turam wala sax gis ñu di wa keur señ diw ñu di ko bind ci ci sareet yi loolu xam naa lu doy war la mat wala ngay jek gis ñu di bind ci bamba fep yu am yu doy war la yo xamne dañ koy bind waaye lu mat a bàyyi la ndax jaaduwul mandarga yu mel noonu la yonent bi sallallahu alayhi wax ne jaaduwul boo ko dee def tamit nga moytandiku boo xar kanamu mbaam mi wala xar kanamu fas wi ndaxte day waral yàlla subhaanahu wa taala rëbb la ñeenteelu àq bi ci àq yi nga xam ne jur wala bàyyi ma am na ko mooy ñu fexe ba sàmm ko ba du jeex du jeex moy muy yokku di jurenté du dé du leen ray ray gu bari yow gayne limi muy mën a lor loraate dañoo war a fexe ba gayne di am lo tax foore classique yi nga xamné day am ci réew yi li lu am solo nga xam dañ fay mën yar ay bayima kiwel ñom nangam ñom boo demee ci réew yi tubaab bi boo demee Amérique day gis ni seen foore yu bare bare bare bare rab bu ka nga fa ñu bàyyi la ca biir waaw deesu leen rëbb deesu leen fetal deesu ko taal daay yu demee noonu ngir sàmm leen kon dañ leen war a sàmm garde leen fexe lu leen di yokk ak lu leen di aar ay kenn waru leen alak ay kenn waru leen sàggane ndax yàlla subhaanahu wa taala neewoon na buggut yàq wa isaa tawalla jan jàngoon sawa fil ardi moo indiwaat loolu kon yàlla bëggul ku yàq yonent bi sallallahu alayhi wax na it ne bu dul woon ne xaj yi xaj aw xet lañ comme ni ñëpp doone xet kon dana leen wax ngeen di ray xaj xaj da do war tuuti waye mu ne nak duma leen digal ngeen di ray xaj waye nag xaj bu ñuul mom fu ngeen ko gis na ngeen ko rey ndaxte baaxut loolu sallallahu alaihi wasallam lawla an al kilaba ummatun min al umam la amartu bi qatlaha faqtulu minha al aswad al bahim faqtulu minha al aswad al bahim kon rey ngir rey noonu rek tamit moom mi dëggul wa an abi hurayrata radiallahu anhu jëli nañ ci abi hurayrata mu wax ne yonent bi defas naa dégg yonent bi sallallahu alayhi am na wenn xorandoom wala mellentaan wu ma a matt ab yonent nabiyyan min al yi dañoo bari yonent bi mooy nettali Abu Hurayra dégg ko ne am na benn yonent boo xam ne aw mellentaan da ko masa màtt wala xorandoom bi mu ko màttee mu daldi yable ca ne dem leen lakk kër xorandoom gële ñi dem wut mboob jël almet lakk kër xorandoom nga ba mu ko defee yàlla subhaanahu wa taala wax yu yonent boobu ne ko aw xorandoom képp màtt la nga alak aw xeet mbooloo mépp nga wenn xorandoom rek moo la màtt nga dem rey yëpp yow xanaa boo reyoon wi la maata sax lu bon bon mu tane te xanaa xamoo ne xeet woowu nga rey muy mellentaan yu bari tu sabbix dañuy sàbbal yàlla te yow mën naa am saa su nekk doo sàbbal yàlla kon ñu gis ne kon luy lore te donte bàyyi ma yi yu ndaw ndawaan roy rey ko rey goo xam ne danga koy rey rey maasale noonu dëgganut rey ibaada jamaa ya noonu kon yonent bi wax na ne am na ci yonent yi koo xam ne aw melentaan wala xorandoom da koo masamaat mu digle ñu taal kër xorandoom ya xorandoom yépp de yàlla subhaanahu wa wax yu yonent boobu di wax ak moom ne ko yow kay li nga waroon a def xanaa wenn xorandoom wala mat waaye lu toll ne xeeb nga rax nga nga rey leen dammte leen ngir benn bu la mat rek loolu jaaduwul te xanaa xamoo ne ñooñu nga rey muy ay xorondom yu bari dañ doon sabbal yalla te yow man na am leg leg do sabbal yalla mané kon fama baaru ko kon ci ñi reey nit ni kon reey yu fuñu dem ñi reey do ma adamay di len fetal di taal nangami ci seen kaw kon loolu naka pexé kon ci aw xorondom rek aduna na tukki loolu kon loolu ak yeddel la bo xam yalla subhanahu wa taala yedd nako bu yonenti ci yonenti ngir def ngum def loolu kon mbok yi dafa mel ne loolu ay benn benn la ci àq yi nga xam ne gis nañ ne àqi bàyyi ma la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala baaxe na ko bàyyi ma mu war ko sàmm moom doomu aadama ba dara du ca manqué ci toppatoo gi ba muy dund ci yërëm gi ci bañ a gaañ gi ci bañ a lor gi kon daa mel ne xam ne dañuy tënk rek te ñëw ci mujj waxtaan wi ak li ci sës bu ko def insha allah taala yeneen li ci des mën nañ koo bàyyi ak mbokk yi kon ci tënk bi dañuy wax rek ne ngir àq yi mën a am nag ñu fexe ba ayawaan yi jor seeni àq fokk war naa am ay garanti war naa am ñu ko taxawe war naa am lu ko taxawe waaye buñ ñu nee wax ne bay ma dañ ko war a yërëm rek dañ ko war di sëf lu mu àttan rek te wutuñu koo xam ne mooy toppatoo képp koo xam ne sëf nga bàyyi ma loo ko wërta sëf mu dal ci sa kaw wala mu teere la ko wala mu waar la ca wala mu génn la ca koy du sotti kon looloo tax dawrul amru bil maaruf wa nahaani munkar ñoo xam ne yàlla subhaanahu wa taala da leen di baaxe ñuy xamal nit ñi ak yee nit ñi ci liñ war a taxawa doom bàyyi ma ak yiñ ko war a soril loolu lu am solo la ci diggante boroom xam-xam yeeg ñi nga xam ne ñooy imaam yeeg waaye kilifa yi tamit kilifa yi xam ne ñoo jaboote njaboot gi ñoom it ñoo war nañoo taxaw ci loolu ba bàyyi ma kenn du ko sobental kenn du ko xañ ay axam waaye war nañoo mën a wutit ab commission wala hëy boo xam ne mbooloo moo xam ne liñ leen di sant mooy topp toolu mel noonu nga xam ne li ñuy dox ci dëkk bi ak li ñuy dox ci réew mi mooy fexe ba képp koo xam ne jalgati nga àqi bàyyi ma ñu dal ci sa kaw wala ñu teg lay daan wala ñu def la loo xam ne moom la yoon teg ci sa kaw ndaxte loolu mooy tax mu dañ boole ca nag ñoom ñu boole ca di yee nit ñi ak di leen xamal lan mooy àqi doomu aadama doom bàyyi ma yi nga xam ne moom la ñu am ci doomu aadama ak nan lañ war a jëflanteeg ñoom ñu di ko xamle di def di ko jàll ci rajo yi di ko jàll ci ci télévision yi di ko jàll ci yëpp ba ñëpp mën koo xam wax na it képp koo xam ne jalgate nga loolu nanga nangama na laa dal loolu kon fokk ñu war a wut mbooloo commission boo xam ne dañuy war a taxaw loolu. beneen bi ci des tamit yor bàyyi ma dawal sareet wala dawal aw fas tamit du jege nii rek dañ ko war a bàyyi képp kum neex def gone yu tuuti nga xam dañoo toll dal. dañu wara toll ci jàng yor ko mënuloo sa bop dara bay manal fas dara wala ngay dara mam dara lolé mu wara dañ nga xam kep ko xamne ya nga yor saret di ca dem ak dikk ndax mané su ko ñak ñu sét la ba nga xamne am nga kàttan gi am nga xel mi mën nga ko régler ñu dog la jox aw kayit lu mel permis boo xamne ne dalay may nga mëna dawal saret ci dëkk bi lolou tamit yaakaar naa ne bokk na ci li defar bok na ci li tax tamit doom adamay jox aq ñi xamne moy ne bàyyi may beneen ba ci des mooy fexe ba ñëpp tënku ci loolu képp koo xam ne wuute naag atte yooyu ñu teg la ko bu ñu la waree dóor dóor la bu ñu la tëj tëj la bu ñu la waree teg ay daan teg lay daan ndaxte mooy tax njariñ liñ bëgg ñu am beneen ba ci des wut ay fajukaay yoo xam ne it dañ ciy faj ba yéeme yi ay clinique yoo xam ne ay fajkat dañ fay nekk muy ay vétérinaire yoo xam ne dañ fay nekk ku am sa jur gu wére di mën ko faa yóbbu ku am sa fas wu soj wala wala wala wu jukku ni wala dara nga mën ko faa yóbbu jox la ay doom wala loolu lépp lu lu lu mënta ñàkk la loo xam ne yi gis nañ ne eh, mbooloo mu ko saytu moo war a am kon daal yéen sopp yi yéen waa yére bi yéen jullit yi ñuy dégg yépp li leen bëggoon a tënk rek xañ na ni bëggoon mu leere ni léerewu ni ni mu bëggoon mu yaatoo ne yaatoowu ni waaye lu ci jàpp ngëneel yàlla subhaanahu wa taala ak baaxam waaye lu ci jagari mi ngi dellu ci suñ lottuk doomu aadama di ñaan yàlla subhaanahu wa taala gën leen fay ñu yàgg koo fekkee Cheikh Siidil Muxtaar suñ borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam lool yàlla yokk yéeneem lool Sëriñ Tuubaa euh, baaxee nu ngëneelam ak euh, ngërëmam ci barakatu shahr ramadan mubarak wa salli ala nabi wa sallimi waqad bihi xaajata kulli muslimi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Ahmadou Samb ci waxtaan wu am solo yi lay ñaanal suñ borom mu dëgëral la te sàmm la bu baax kon day mel ni mbokk yi dégg nañu waxtaan wi bu baax te matale na bi mu tàmbalee dégg ngeen ci fi mu ubbee muy ne bàyyi ma yi ñu nga xam ne ñu ngi ci àdduna bi lenn la ci teraanga yi nga xam ne suñu borom moo ko terale doomu aadama teral yi nga xam ne yàlla moom moo ko teral doomu aadama bàyyi ma yii ñuy gis ci jamono lenn la ci teraanga yooyu waaye it ñëw na ci tomb bu njëkk bi te mooy leeral am solo goo xam ne nii jur gi am na ko solo jur gi nga xam ne ñu ngi ci jamono bokk na ci yi nga xam ne leeral na ko ci am solo gi muy lenn ci jur yi am na ay meew yu ñuy génne akum soow moo xam ne nii Euh, ci jur yi nga xam ne yàlla daganal na ko noonu la daganale ndawal ga noonu lañu daganale it soow ma ak meew moomee bokk na ci njariñ yi nga xam ne jur yi am na koy muy lenn ci yére yi nga xam ne moom la ñuy sol ci jur yooyu lañ koy génnee waaye it bokk na ci njariñ yi ca mu doon njariñ loo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ciy teg suñu bët muy lenn ci ay sëf yoo xam ne nii ay bagage la yu ñuy sëf lenn ci jur gi bu njëkk bi ay wata amutoon ak avion ak Sahara ak yoy yep bima ma magutoon euh, jur gi mo fi nekkoon ci lañ da seuf yu dis yo xamna ni yalla yàlla ko daganal ñu di seuf di ci dem ay barab yu sori waye it am it ab tombu bo xamna leral nako na ci biir waxtaan bi muy yu bari dañoo japp ne bàyyi may dal duñu wax duñu xamuñu it duñu yëg mitit waye leral na ci biir waxtaan ne ci seen biir danañ deggante danañ xamante danañ xam li wax ba am na jaam yoo xam ne sax suñu boroom may na leen kattan ñuy xam li bàyyi may di wax bokk na ci benn misaal bu mu ci indi woon mooy xarandoom yooyu nga xam ne dañ doon waxtaan ci seen biir doon wax moroomi xarandoom yi naan leen gaaw leen dugg ci si kër gi gaaw leen dugg ci kër gi ndax Suleymaan mi ngi ñëw ak i soldaaram te bu ñëwee bu ngeen moytuwul danañ leen danañ leen gaañ yonent yàlla Suleymaan dégg loolu loolu aaya boobu gis ngeen ko ci sóoratu Namli sëriñ Ahmadou leeral na ko bu baax a baax ci biir waxtaan waaye it am na it ay jagoo yoo xam ne nii yu am solo yoo xam ne nii bàyyi ma yi am nañ ko muy wàccuwaay boo xam ne nii am nañ ko ci alxuraan am ko ci sunna am ko ci yàlla ndax téere alxuraan bu tedd bii bari na saar yoo xam ne nii ay turi bàyyi ma lañ leen ko tudde saar wa ca njëkk te gën a gudd ci alxuraan muy suratu baqara xam ngeen ne baqara li muy firi mooy aw nag loolu day wane am solo guñ am solo al anam la muy ak jur loolu lay tekki gisaan nañ ci saar woo xam ne nii naxli lay tekki naxli la mooy yamb mooy yamb yi nga xam ne ñooy joxe lem gis nañ ko ci alxuraan saar woo xam ne la tudd gis nañ ko it ci saar woowu ñu wax léegi nga xam ne doon wax mbirum suleymaan mi ak xarandoo mi muy sóoratu nam li it am it saar woo xam ne nii la muy jargon loolu it am na ci alxuraan ba ci fiil sóoratu fiil muy ñay bari na ci alxuraan bu ñu ko toppoon mën nañ ci tudd yu baree baree bari ak aay yoo xam ne tudd na eh, ay bàyyi ma yoo xam ne nii ñu ngi koy gis fii ci jamono waaye it am nañ ngëneel yu am solo yoo xam ne nii sëñ Ahmadou tudd na ko ci biir waxtaan yi yoo xam ne nii bàyyi yi am nañ ko bokk na ci mooy dañuy dañuy dañuy dañuy yombalal lenn ci jaamu yàlla yi ñun ñi di ko def ndax lu mel ne tabaski soo ko bëggee def am tiyaabay tabaski faaw nga jënd ab gàtt rendi kon day mel ne bàyyima yi am nañu wàccuwaay waaye it lu mel ne tudd nga xam ne sunna la soo amee doom wala gan bu ñëw ci jamono ñu wutal ko am tudd ab ab ab gàtt boo xam ne ni dañuy tudd loolu it ak jaamu yàlla goo xam ne ni ci bàyyima yi lañ koy amee waaye it bàyyima it am nañ solo am solo goo xam ne nii mbooleem xare yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare na ko gis ngeen saxaaba yi ak ku tedd ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ab giléem la daa war wala ay fas lañ daa war ñuy dem ca xare yooyu lu lu mel nii ñu am muy avion yi ak oto yi ak train yi ak yooyu waaye bu njëkk ci jur gi lañ daa war di dem di aj mag yooyu yëpp ay njariñ la loo xam ni euh, bàyyi may am na ko te sëñ Ahmadu leeral na ko ci biir waxtaan loolu bu amee njariñ yooyu bu amee ak wàccuwaay boobu bu amee kon day am ay àq yoo xam ne nii moo ñu war suñ diggante ak bàyyi may àq yooyu bokk na ci mooy euh, alxuraan ak sunna joxe na ay aaya ak i ahadis yu wane ne bàyyi may ñoom dañoo am ay àq bokk na ca muy giléem googu nga xam ne moo doon jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam métit yooyu noonu dégg ngeen xadis bi ni mu ko tuddee euh, ca sëñ bi sax nettali na ko ci jës bu muy yonent bi daa mës a dugg ci benn jardin ci jardin yi nga xam ne waa ansaar ñoo ko moomoon bi mu ne yunn ci biir jardin bi rek giléem gi daa gàttandu yonent bi sallallahu alayhi wa di jooy comme ni nit di jooy rongo ñi di génn yonent bi sallallahu alayhi wa jël loxoom bu tedd bi raay giléem gi fompal ko rongo ñi ba jeex mu laaj ko lan la giléem gi jàmbat ko ne ko man de ki ma moom damay liggéeyloo liggéey bu metti du ma jox ma lekk du ma jox ma naan yonent bi daal di jug daal di dem ca mbooloo ma ne ana ku moom giléem gii nii benn waay boo xam ne ni ci waa ansaar la bokk daal di jug daan ne ko giléem gi dey yow yonente yàlla bu tedd bi man maay boroom mu ne ko xanaa doo ragal yàlla ci giléem gi giléem gi kat nee na doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan ca danga koy sonal loolu ci kimtaan yi nga xam ne ci kimtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon lenn ci bàyyi may sax bi yonent bi nekkee ci jamono daana ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi di jàmbat gis ngeen sëñ bi naan minha tawassulu tuyuur bihi lahoo bihi lahoo staka baxiir maanaam bokk na ci kimtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi dañ daa ñëw di ko jàmbat même picc yi sax dañ daa ñëw di ko jàmbat am na xadis boo xam ne niit it euh, yonent euh, nettali nañ ko mu ngi ci riyaadu saalihin muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa ma sa toog ci genn garab am benn waay boo xam ne daa dagg benn bànqaas ci garab gi benn tàgg nekkoon ci biir bànqaas boobu noonu ak ay nen waaye picc mi dafa ñëw ba ci bopp yonent bi mu tiim bopp bi di di lëppi lëppi saxaaba yi di ko séen muy lëppi lëppi tiim bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi daan ne mi benn saxaaba ci saxaaba yi ne ko ah man day dagg naa benn bànqaas boo xam ne nii am na tàgg mu ca nekkoon moo xam ne am na ay nen yu ca nekk yónnente bi ne ko demal delloo ko ca bam ko ca delloo rek picc mu ne wër dem moom la sëriñ bi naan minha tawasulu tuyuur bokk na ci kiimaanam mooy picc yi dañ daa ñëw ci moom di def tawasul ci moom dégg ngeen ci sëñ Ahmadu leeral na ko ci biir waxtaan waaye it euh, bàyyi ma yooyu dañoo am ay àq yoo xam ne nii dañ koo warlu ak suñu digganteek ñoom àq yooyu bokk na ci mooy dañoo am àqi dund àqi dund dund nag bu ñu ko waxee luy dund day aajo muy lekk ak naan malaayika rek mooy dund ca lekk ca du naan waaye lu dul moom dañ koo baaxoo xam ci aada muy lekk ak naan kon képp koo xam ne da bàyyi ma da nga ko war di jox lekk ak naan am na koo xam ne dugg na sawara ca waraloon loolu mooy muus moom yoroon ci biir këram yeew ko génnewu ko bàyyi ko joxu ko mu lekk joxu ko mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadiis bu wér ne soxna soosu dugg na sawara ca li ko waraloon mooy daa yoroonu muus joxu ko mu lekk jox ko mu naan tekke it yeew ko ba mu faatu waaye nit dugg na àjjana ngir bàyyi muy euh, kooku mu nettali woon ca mu duggoon ca teen ba romboon xaj bi nga xam ne dafa maroon mu dugg ba mu naanee ba mu pare jéem a lijjanti ba génneem ndox jox xaj ba mu naan ba màndi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kooku dugg na sax dugg na àjjana ngir yërmaande jooju nga xam ne da ko amoon ci xaj boobu noonu ba mu naan ba màndi waaye kon ndeke bàyyi ma mën nañ laa dugal safaan mën nañ laa dugal àjjana kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax am nañu it ak bu baax a baax ci ñu bañ leen a mbugal bàyyi may dañoo am ak ci ñu bañ leen a ci ci jamonoy naa Omar Omar mas naa bind benn xaraar boo xam ne nii da koo tasaare woon ci pays arab yépp boo xam ne nii ñaar la ca tere yónnee na ko Xiraaq yónnee ko Saam yónnee ko foo mbooleem fu fu fu ab julli nekk ci àddina bi ne leen bis ni tey man Omar man Omar ibnul Xataab amirul niin maa ngi tere képp koo xam ne nii dafa yor ab bàyyi ma wutal ko laab goo xam ne nii laab ga dafa dang loolu la ci njëkk wax nañuy bàyyi bàyyi ma yi nga xam ne fas yi nga xam ne dañ ni di wutal laabi weñ yoo xam ne ni day day day dang lool tekkee yi daane tere naa it képp koo xam ne ni dangay duma fas wala mbaam nga di ko duma ci yar boo xam ne nii dafa am weñ xaraar ba loolu la ci bindoon tasaare ko nag ci mboolem pays arab yi yëpp ci pays pays islamique yëpp loolu kon day wane ne ñoom Euh, bokk na ci akam moy ñu diko ko mbugal ci ñun dañuy faral di gis fii euh, lenn ci fas yi ak mbami door yu metti yo xamne ni ñi ngi koy leen door ci lolu nekkul lo xamne ni lu rafet la wala lu jaad la bokk na ci it ak yi nga xamne am nañ ko dagan na ci ñom ñu seuf leen waye buñu leen seuf lu upp sun borom moo ñu daganal ci ñom am ci yo xamne dagan na ci ñom ñu lek leen waye am ci yo xamne ni ci ñom dagan na ci ñom ñu seuf leen kon buñu leen seuf nañuy moytandikoo di sëf lu diis ci bàyyi may wala di leen sëf di ca teg am po maanaam sëf ab fas aw fas ba mu fees nga toog di waxtaan di ngeen xadis boobu nga xam ne tudd na ko ci waaye di leen moytoo te loolu dafa tasaaroo lool bu baax a baax a baax di leen moytoo saaga ak di leen wax lu bon ndax ñoom dañuy dégg di yëg métit yi da ngay gis koo xam ne day war am fas wala mu waru mbaam di dagg ay saaga yu ñaaw a ñaaw ñaaw di ko jëmale ci war waay fas woowu noonu wala mbaam noonu Lalu nekkul lu rafet yonenti bi tere na ñu leni walau wala ñu leni saga bokku na ci yi nga xamne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere na ko ci bayima yoyu yooyu sëñ ahmadu euh, leeral na ko ci biir waxtaan yi muy di len def ay ñaas loolu dañuy faral di gis len ci nag yi wala ci xar yi wala bëy yi wala fas yi ñu leen def ay ñaas yo xamne ni ba di caaxaan rek lañ cee bind bo xolé deug deug deug deug bu fekkoon sax dañ leni ñaas ngir xamé len man nañu wax ne xagn na dana jaadu waye ñaas yo xamni ni baati caaxaan fo yo xamni ni am po rek la lolu jaadul yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere nako kon day melne euh waxtaan yi solo lol moy tomb yi nga xamni leral nako ci bir ñu di sante bu baax diko di ñaan suñu borom degeeral ko bu baax a baax te sàmm ko bu baax a baax ñu ngi fàttali ne jotaay suba bi insha allah taala fatawa lay doon manam euh, jotaay bo xamne ne laaj ak tont lay doon ñuy ci andak al mufti sëriñ naa Mbàkke moom sëñ Abdul Wadud insha allahu taala kon bu fekkee ne ay laaj amut euh, dañuy yëkkati jataay bi kon day mel ne benn laaj rotut ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu